démb ndeysaan dama xëy rek ñépp di ma woo téléphone ne ma déngali nga Iran wax ci yow ci ni mu rafetee Iran ndaw tabaarakallaahu sànq ma woo ko téléphone di ko ci ndokkeel ndax nit bu waxee ci yow lu baax sa njaboot yeggale ko war nga war nga wax ne ñoom Abdou Aziz Ndaw ana mu ñoom ñii ñooma ko wax ak sama soxna Iran ku ñàkk ki ñaan la lu ne wax na ko ci man démb ci rajo bi ak télévision bi ci lu rafet ma woo Thierno Bachir wax ko ko woowaat ko wax ko ko tabaarakallaahu ba tey jii ñu ngi ciy jokkoowaat muy ku baax maa ngi koy sant te ku ko dégg nga jottalil ma ko ko ku dajeek moom nga wax ko ko maa ngi leen koy ñaan ku ko ci defut wal ismu ilay aleyk am nga ci bàkkaar ku dajeek Iran rek yéen ñi ñi ci góor ak jigéen nag laa wax ku ku nekk ci tant bi boo dajeeg Iran ndaw boo ko joxee loxo ne ko shérif nee na mu ngi lay sant kañ ku ko jot téléphone it soo waxee moom bay waaj a daaneel ne ko shérif nee na mu ngi lay sant man nag su ma wéetee ñaanal ko yàlla Cheikhul Hadj Abdoul Aziz moo ñu daan wax ne bu la nit defalee teraanga na ko wax say mbokk wax ko ay mbokkam soo wéetee ñaanal ko yàlla te mënoon na ne moo nekk ci rajo ba ak télé ba bañ ma faa wax fekk daf ma woo téléphone fan yële mat na weer ñuy waxtaan ma ne ko Iran mu ne ma ne ko xam nga man Seydul Xaaji Malik ak njabootam lu ma ci ci waxin ma ne ko xam nga lu may xaar ci ñoom mu ne maam ma ne ko dalee ci xalifa bi ba ci caat li mujj juddu te sant si walla ndeyam sant si jur ko xam nga mën na bañ a sant si comme ñii sant sàll ma ne kooka ñooña ñëpp ñu dajee ñoom ñëpp ak xalifa bi dem place de l'indépendance ñu tegal leen podium ñoom ñëpp xalifa bi nekk ca ba yënga na kowe ñi ci des ñëpp toog ci suufam man kon ndong ma toog ci suufa suufa suuf ñoom ñépp ku saaga ndey ba pare jox sa morom muy man damay joxe exemple rek ñépp daggal ma saagay ndey ba pare xam nga lu may xaar yàlla na ma yàlla dënk ma ne ko yàlla na ma yàlla dënk keroog milliard ñoom ñépp dinaa leen jox kenn ku ne vingt million ne leen dolli leen ndax maa opté seen maam Seydul Xaaji Maalik def ko kilifa lu la njobootam def rek war na laa neex ku tànn nit ne mooy sama kilifa mais njobootam lu mu la def war na laa neex bu la saagaa bégal bu la taggee bégal xasee bégal bu la saagaa ndey sax bégal ndax saaga ndey yooyu yiw lay soppeeku ci yow ah waaw kay dama ni waaw ah, sëriñ Babacar si moo ne ma waxaat ko mu enregistré rek boo paree rek ne ma bismillah waaw ah, kañ dama ni damay waxtaan nag Iran Ndao man bëgguma sax di wax Iran Ndao waaye comme moom la ko ñëpp xamee waaw Ibrahima Badiane la tudd waaye comme ñëpp Iran Ndao la lañ xam mu doon ma jox ay conseiller moom Iran te lii ëpp na weer ba moom barki démb lay door a wax ci man mu ne ma shérif est-ce que xam nga ñi la sopp niñ toll ma ne ko waaw mu ne ma déedéet xamoo leen mu ne ma ñi la sopp bari nañ de wallaay li may wax ni mu ne Iran Ndaw mu ne ma ñi la sopp bari nañ lool lool lool ñi nga xamul moo ëpp ñi nga xam ma ne ko loolu moom dëgg la xam naa ko mu ne ma des na ni nga ko xamee sax des na ma lay ñaan nag nga wattandiku loolu bu ko dara yàq te sa silence ñépp naw nañ la ci conseiller ma conseil yu baax yi ma wax yépp ma ne ko Iran mu ne ah ma ne ko man dara dérangé wu ma ma ne ko lu xam nga lu tax mu ne ah ma ne ko xam naa sama bopp ma ne ko te Serigne Cheikh Tidiane si rahmatullah alayhi wa radiya anhu moo daan wax ni Serigne Babacar si moo leen daan wax ni te loolu Serigne Abdou Alamine mosuñu toog te fàttaliwu ma ko man sëñ Abdou moomu mayoon ci boppam premier altine bi njëkk ci weer wi ma dem reerandoor ak moom mësuma reerandoor ak moom te jógewuma fa quatre heures du matin teraanga bu ne mu defal ma ko ma ne ko sëñ Abdou moo daan wax ne mu ne sëñ Babacar si dafa leen daan wax ne doom mu ne mosuñu toog ba tàqalikook moom te waxu leen ne doom riir bi riir daj riire sa bopp ci gën a bon waaye xam be xam daj xam sa bopp ci gën a baax Serigne Cheikh Tidiane si teg ci ne bu la ñëpp xamee nga réer bu la ñëpp xamee nga réere sa bopp mu ne dee ko gën mu ne waaye bu la ñëpp réeree nga xam sa bopp mu ne boobu la yàlla soxla ndax boobooy farat ma ne ko xam nga Iran lu may xaar ci kër Seydul Hadj Malick mu ne ma ne ko dalee ci xalifa ba ba ci suuf ku sant si ak ku ndeyam sant si te moom santul si ñoom ñëpp ñu dajee place de l'indépendance ñu defal leen turbine bu mag xalifa bi toog ca kaw ñi ci des toog ci wetam man ma toog ci suuf man cundum ñu commencé ku saaga ndey ba doyal jox sa morom mu saaga ba doyal ba ñépp mat ma ne ko keroog yal na ma fekk ma am ay milliards kenn ku ne dinaa làmb vingt million jox la ne la dool lil ndax li ma am sama ama ma ko may loo ma def neex na ma te billaahi wal kitaab bi mooy dëgg ci man mooy njobootu Maodo mënumaa def lu ma naqari mënut mënul nekk xam nga nit nga saaga ko ndey moo gën a metti moo tax ma joxe misaal boobu njobootu Maodo ñoo ma mënta def lu ma métti luñ ma def neex na ma ndax li ma góobee ci seen maam ñi sant ay dara bari nañ ñi yonent bi ak Cheikh Sidi Ahmad Tijaan ñi jur bari nañ waaye fa lillahi alhamdu dama ko wax shukran lillahi wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis li may def ci réew mi ak li ma taxawal ci réew mi ban shérif ngeen gis mu di ko fi def amul te du am ila yawmil qiyaamati ndax ki ko teg ci sama loxo mooy Cheikhul Hadj Abdoul Aziz amul sama baat ni poto amul wër leen rek wër leen ngeen xool waaw kon nag eh, teraanga ji la yàlla defal ka tax nga mën ko kooku njobootam luñ bëggati ci yow te tegoo ko ci seen loxo ku ñàkk orma nga ku ñàkk teggin nga ki la defal teraanga ba ñépp yëg ko lu la njobootam defati war nga koo mën a muñ ndax teraanga ja moo ko jiitu tey Serigne Cheikh Tidiane si nee na gisuma fi noon mu ne soppe bu yegg moo fi nekk Serigne Cheikh Tidiane si nee na gisuma fi noon soppe bu yegg seegul moo fi nekk mu ne léeg-léeg ma dégg ku naan diw sama noona mu ne damay tiit ndax noon amul soppe bu yegg moo fi nekk beneen bi ajjuma ma wax ko foofu lay geexale rek dugg ci tem bi ajjuma Abdoulaye sàll bi a ngi toog moo génn dëkk pikin ma ne leen man dama rëccu su ma yàlla tàggu woon lu tax mu def ma nit ni ma naqare wallahi su yàlla su yàlla tàggu woon xam nga nekk nit moo dàq ci li yàlla bind nekk jullit rawati ko nekk taalibe tijaan rawati ko tënku kër Seydi Hadji rawati ko yooyu yëpp nag daf ma naqari neexuma tey neexuma ëllëg su ma yàlla tàggu woon du ma du ma ko doon xam nga bu ma tàggu woon lu ma bëgg a nekk socc bu Seydul Xaaji Malik doon soccoo ma tànn nekk bant ba man man looloo ma gënal nekk nit looloo ma gënal nekk jullit looloo ma gënal nekk taalibe tiijaan looloo ma gënal tënku kër sey tënku kër Seydul Xaaji Malik Maodo socc rek damm bant ma nekk bant ba donte benn yoon la may soccoo sànni ma doy na ma billaahi wal kitaabi waxuma mu soccoo ma ba socc bi jeex de na ma dugal ci gémmiñam googu rek ak bëñam yu sell yooyu rek benn yoon ne wook wook rek sànni ma moo ma gën a nekk nit moo ma gën a nekk jullit moo ma gën a nekk taalibe tijaan moo ma gën a tënku kër Seydul Xaaj Maalik nit ñi dañ xamut buñ xamoon daañu ndànku man Maodo ma gënal lu ma mën a am ak njabootam nag te maa ngi koy dund nag te du ma deñ di ko dund ila yawmil xiyaamati loolu rek laa doon waxtaan ak Thierno Bachir démb ak tey yépp ci programme yu am ak naka lañ ci war a doxale